ci weeru koor wu jot euh, tey nag suñu jataay yi ñi ngi ko indi ci def lu baax def lu baax nag mbokk yi amul frontière moo xam sa borom nga ko séq ak subhanahu wa ne man daal opté naa dimbale yàlla ndax yàlla wax na ci alquran ne in tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdaamakum su ngeen dimbale yàlla yàlla dimbali leen ñu ne ko waaw yàlla yow naka lañ laa dimbali ñun fekk nañ asamaan si pare ñun fekk nañ suuf si pare ñun fekk nañ géej gi sax xorom nga ko ba teg kon ñun boo bëggee ñu dimbali la ci naka lañ lay dimbalee yàlla ne su ngeen dimbalee yonent bi sallallahu alayhi sallam dimbale ngeen man yàlla te ku dimbale yonent bi dimbale nga yàlla moo tax yàlla ne man it ku ma dimbale ma dimbale la yonent bi nu ñu koy dimbalee parce que nekkatu fi xanaa dangay ngay fas yéenaa rek def ni Cheikh Alassane Sène foo dégg aw xeetam ñu nekk ci jafe-jafe nga fexe ba ñu génn ca foo dégg ab jullit nga fexe ba xettali ko ci jafe-jafe ba mu nekk loolu lañuy ñuy dimbale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boole koog nag teg sa tànk ci sunna sa mu tegoon ndax nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy dem daf ne taraktu fikum amrayni lan tadillu baadi ma in tamassaktum biha maa ngi dem de waaye bàyyil naa leen fi ñaari yëf yoo xam ne su ngeen ci jafandoo insha allahu du ngeen sànku sama gannaaw ñu laaj ko ne ko yow mi yàlla yónni lu ñu loolu mooy lan mu ne bàyyi naa fi téereb yàlla bi li feeg yéen a ngi jëfandikoo alquran di ko jàng di ci àttewoo di ci tënk seeni mbir mel na ni yéen a ngi may dimbale beneen bi mooy bàyyi naa fi sama sunna sunna si mooy lan fexe ba sa tànk bi fi yonent bi sallallahu alayhi wa tegoon tànkam nga teg fa sa bos ndax wax nañu ko ci jotaay yi passé yàlla jàngale ko yàlla jàngale na ko ci alquran ne laqad kaana lakum fi rasulillahi iswatun xasana yéen jullit ñi daal wala yéen xeetu yonent bi yàlla daal mi ngi leen orienté ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne am na jikko yu rafet yu mu làmboo yoo xam ne su ngeen ni melee mel ni ma bëgg man seen borom subhanahu wa taala te sayidatuna aïcha radiallahu anha dafa am ku musa ñëw laaj ko ne ko dama bëggoon nga wax ma naka la yonent bi sallallahu alayhi wa meloon ma fas ko yéenaa mel sayidatuna aïcha ne ko ndax doo jàng alquran mu ne ko aha kay mu ne ko soo jàngee alquran rek jàng nga jikko yonent bi kon pratiqué moo la dese kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam liñ ciy jàpp mooy alquran la woon joo xam ne dafa nekkoon ci kaw suuf si di dox liñ ciy dégg rek mooy def lu baax bu ko utal frontière def lu baax soo ko dee def bul ni kii ñoo bokk tarixa du bokkuñu tarixa duma ko dimbali bul ni bokkuñu diine duma ko dimbali parce que alxalqu kulluhum iyaalullah njaboot gépp njabootu yàlla lañ sayidina ibrahima alayhi salaam dafa am benn bés mu dem ba war a tëdd am góor gu ko dikkal fëgg buntam dagaan ko ni ko dama bëggoon fu ma fanaan ak ku ma sarax lu ma reere sayidina ibrahima laaj ko ne ko ndax gëm nga yàlla mu ne ko déedéet mu ne ko awma droit fat la génnal sama kër bi mu ko dàqee waa ji dem ab diir sayidina jibril na jalañ agsi ne ko sa borom nee na nga topp ci waa ji jëli ko ndax dund na fi juróom-ñaar fukki at ak juróom yoo xam ne lépp ci li ko naqari lay xëy te taxul mu beddi ko taxul mu bàyyi ko ndax ab jaamam la sayidina ibrahima dab waa ji yëkkati reer ba jox ko defaral ko néeg bi waa ji ne ko bala maa lekk wala ma tëdd dinga ma wax lii nga def lan mooy sabab bi ci soppeeku gu gaaw li gi sayidina ibrahima ne ko sama boroom nee na dund nga juróom-ñaar fukki at ak juróom yoo xam ne amu ci benn yoon boo xam ne def nga li mu la sant benn yoon te taxul mu beddi la taxul mu bala kon man simple jaam comme yow awma droit ci beddi la parce que mbindeef yépp njabootu suñu borom lañ subhaanahu wa taala kon mbokk yi li ñu ciy dégg rek mooy ku ciy def lu baax bu ko wutal frontière bul ni diw xam naa ko bul ni diw xawuma ko bul ni miin naa ko bul ni miinuma ko bul ni ñoo bokk tariixa bokkuñu tariixa yooyu yëpp séparation lay andi jàppal ni mbindaafoon la yàllaa ko bind te yàllaa la bind yàllaa am lu mu la sant ci moom yalla nañu yàlla defal dégg ak topp di leen ñaanal euh, ñu fekke beneen jataay ci seen émission shukran wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu